ci ñi ngi dégg ñi ngi jéggulu dog-dog bi amoon sànq alhamdulillahi rabbil alamina seen ñaan moo nangu ndax yàlla dogal na ñu nekk ci phase test pour suñu télé la télé du peuple fii may waxe ak nii maa ngi def direct ci télé bi alhamdulilahi rabbil alamina ngeen dolli ñaan yi ñaanal président Mbagnick Diop ak équipe bi koy jàppale yépp rawatina Moustapha mi suñu DG yàlla defal leen tawfiix ba seen yéene ci réew mi yépp yàlla àggale ko ci kaw dund ak jàmm mbokk yi ñoo ngi doon waxtaane kayfiyatu tawba wa rujuu ila allahi lan mooy tuub ak nan lañuy tuube bala ñuy delluwaat ci suñu boroom ñu waxoon sànq ni tuub dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg gën caa tedd doy na sëkk ci màggaayu tuub ak tedd ngaam waxu yàlla subhanahu wa taala bi mu wax ci alquran ni inna allaha yuxibu tawaabina wa yuxibu almutataxirin yàlla nee na man yàlla dama sopp lool way laab yi foofu faw ma taxaw fi ndax mbokk yi laab dafa am solo ci ab jullit muy laabu biir ak laabu biti ñu bari nag ci sama kalaas gi laabu biti bi rekk lañu fonk bu yére yi tilimee faawu soxna si fóot ko mbaa mu wuti ku ko fóot bu dàll yi tilimee faawu ma fomp ko bu oto bi tilimee faawu ñu raxas ko bu kër gi tilimee faaw ñu bale ko waaye bu sa xol tilimee nga taxaw di seetaan ba mu yàq say cër imaam Junayd radiallahu anhu waxoon ni almaau yaxsilu maa bi thawbi min daranin wa laysa yaxsilu xalbu lmuznibu lmaau nee na ndox yére yu tilim la mën a setal waaye xol fa mu nekk ndox mënu fa àgg pourtant day tilim comme ni yére di tilime bi ñu laajee sallallahu alayhi wa ni ko waaw jaam bi bu sàgganee ba xolam tilim wa ma jilauha lan moo ko mën a raxas ba mu weex def ni jàng alquran ak def sa xel ni bis dana ñëw nga laloo sa nijoor bii tuub nag dafa bokk ci jaami yàlla yi nga xam ni sama boroom daf ko sopp lool moom tuub yàlla nee na dama bëgg way laab yi bëgg tamit ñi nga xam ni fu ñu defee bàkkaar rekk xam ni tooñ nañu te ku tooñ nag daawala baalu moo tax li am solo mooy doomu aadama yàlla da ko bind ci jàq ak jaaxle ak fàtte kon day jaadu soo defee bàkkaar nga tuub ndax kenn matul yàlla rek moo dul juum jalla man laa yasxu yàlla rekk moo dul juum sallallahu alayhi wa moo gën ñépp waaye wax na ci xadis ni yàlla topp ma dara waaye bis bu yàlla sàkk man sallallahu alayhi wa danaa jéggulu yàlla soixante-dix fois waaye yàlla ak ni mu baaxe ni mu yaatoo njëggal nga xam ni yërmandeem moo jiitu meram nga toog ci sa sijaada naan ko yàlla baal ma baal ma baal ma baal ma ba muy soixante-dix fois am naa yaakaar ni dana ba dana la baal kon man miy wax ak yéen ñi may dégg ñépp kenn ku nekk noo mel xam nga bu nit ñi xamee xam nga bu nit ñi xamul xam nga te yàlla dara ump ko kon dugal ruq mën a kan ngay sepp yi nga bonle di sànni di sepp yi nga bonle di sànni di sepp yi nga bonle di sànni day mujj dootoo deseeti dara lu bon te boo deseetul dara lu bon dootoo ànd ak bon dootoo mën a def bon kon wa min raxmatillahi taala bi cibaadihi annahu jacala tawbata miftaaxan li magfirati dambi kullihi mahma azuma fa bitawbati tumxa sayi'aat wa tatabaddalu wa biha yanaalu lmuslimu alfalaaxu fi dunya wal axira fa takunu sababan fi duqulihi aljanna wa najaatihi min annaar bokk na ci yërmande yi nga xam ni yàlla daf koo defal jaam ndax yàlla dafa bari yërmande yàlla dafa bari yërmande nee na yërmande téeméeri xaaj la juróom-ñeent fukki bi ak juróom-ñeent yépp yàlla neen dama ko denc ngir yërëma leen ko benn bi laa sànni àddina ngeen ci yërëmante boobu laa jox bàyyi ma ba buy nàmpal doomam bañ a gaañ doom ji nga gis xar mi buy nàmpal doom ji ndeysaan yëkkati tabaarakallaahu tànk bi ndax day foog ni su ko tegee tànk bi gaañ ko waaye yërmande jooju nag ku ci bëgg a mus yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samaai sallallahu alayhi wa yërëm leen ñi ngeen féete kaw ko defee man yàlla mi leen féete kaw ma yërëm leen kon ab julit day am yërmande ab julit du soxor yërëmal soxna si nga dëkkoo bu la tooñee nga baal ko yërëmal ki nga xam ni sa waaye la yàlla subhanahu wa taala dogal na wërsëgam di jaar ci sa loxo yërëm ko muñal ko jàppale ko tette ko di ko conseil ngir ëllëg moom it mu mën a taxawal fi boppam ndax li wala fii wax naan buti gu mbagg boo gis magasin ne ca xol ba loolu mooy waxu dëgg waaye ñàkk yërmande baaxul te seetlu nañ ko torop torop torop torop ci réew mi ñàkku yërmande baaxul te seetlu nañ ko torop ci réew mi da ngay def lu baax sax boo tàggoo ay nit wala ñu xam ko dañ koy yàq moo tax Cheikh Alhaji Abdul Aziz bu baax ma radiyallahu anhu daan wax ni nit su amee fayda bu nisaree lu baax bu ko kenn yàqal moo tax yi ngay def ci ak mbaax yépp di ko dawal ci sa bàmmeel bu ci tàggu kenn am nga envi saraxe saraxeel am nga envi joxe joxeel am nga envie dem jàkka ja demal waaye ba ci dem jàkka ja sax am na ñoo xam ne boo nee maa ngi dem jàkka ja ñu ni booy nañ julli fii rek garaawul waay nañ julli fii rek yooyu yëpp tabaarakallaahu nit ñi dañu mën a fanqalaate aw yiw nit ñi dañu mën a fanqalaate aw yiw boo leen tàggoo ci def lu baax rek tabaarakallaahu ñu gàllankoor la moo tax sooy def lu baax rek tabaarakallaahu gaaw ca bala koo seetaane yàq bokku na ci yërmande yi nga xam ne nag yàlla daf koo defal jaam moo di annahu jaala tawba miftaaxan li maxfirati damb yàlla subhaanahu wa daf ñoo baaxe tuub ngir rek jéggal ñu suñuy bàkkaar mënoon na ñoo bañ a baaxe dara moom subhanahu wa taala mënoon na ku ko tooñ rekk mu duma la comme li xewoon duma ku man sa moroom duma yàlla ñu man ñun ñépp waaye nag bëggula duma kenn mu ni soo defee bàkkaar rek ndeysaan eh, jéggulul ndax soo jégguloo ma jéggal la mu fab tuub def ko muy caabi ji nga xam ni mooy tijji njéggalam ak lu bàkkaar ba màgg-màgg nag mahma adumat ya nafsu laa taxnati min dillatin adumat ndax inna alkabaira fi lqufraani kallamami Muhammadul Busayri nee na bul naagu ci bàkkaar bu mag boo def ba foog ni yàlla mënu la koo jéggal aha kay xanaa xamoo ni inna alkabaira fi lqufraani kallamami yàlla su demee bay jéggale bàkkaar yu mag yeeg yu sew lay boole tabarakallahu jéggale moo tax xale ba saan waxoon ko euh, maalikum nu diinaar ndeysaan maalikum nu diinaar xale ba waxoon ko ko waaw parce que maalikum nu diinaar dafa war gëlee moom di tukki yam ci benn xale ndeysaan yam ci benn xale dem bu koy nuyu bakkanam ni ko bu ko nuyu comme xel nag moom toujours dafay conseiller doomu aadama lu baax gis nga soo bëggee def lu bon sa xel dina ñëw ni la ëpp naa def ëpp naa def ëpp naa def mais bakkan moo naa la garaawul waay boo paree rek nga tuub yàlla subhaanahu wa taala ku bari jéggal la sa bakkan moo lay wax loolu maalikum nu dinaar dem bay nuyu xale bi bakkanam ni ko bu ko nuyu ba yàgg xel mi ni ko nuyu ko mu ni xale bi assalaamu aleykum ndeke xale bi nitu yàlla la xale bi ni ko wa aleykum salaam wa rahmatullah yaa maalikum nu xale bi ni ko maa ngi fay ko ba àgg ca papaam te masuñoo gisante mu ni xale bi waaw bi ma arafta nii doom de gañe nga ma noo def ba xam ma mu ni ko arasul qaal inna al arwaxa junudun mujannada maa taalafa minha italaf wa maa tanaakara minha ixtalaf papa salaay sallam moo ni yàlla bi mu bindee ruux yi daf leen def comme ni mu def groupe sanguin ki nga bokkalul groupe doo ko mën a may deret man ak yow dañoo bokk groupe ca aalamul arwaax moo tax ma xam la xale bi bi mu koy wax loolu mu ngi ci suuf si di foog mu ni waaw xale bi looy def ci suuf si doo jóg ci suuf si balaa sa yére yee tilim xale bi ni ko déedéet papa doomu aadama mënul daw suuf ndax minha xalaqnaakum wa fiiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra papa doomu aadama mënul daw suuf ci suuf sii ci la ñu yàlla bind ci suuf sii ci la ñuy delluwaat te ci suuf sii ci la ñu yàlla subhanahu wa taala di dekkal ëllëg ngir fay ñu suñu jëf wax ko loolu rek commencé jooy ndeysaan wax ko rek commencé jooy moo tax lu yéeme la doomu aadama ak suuf waaw ndeysaan suma maam Alioune moo jur suma yaay ndeysaan amoon na 114 ans bi muy décédé waaye lu mu mas sol ci suuf lay tëdd boo ne ko maam sa yére yi mu ne bàyyil ma miinu ko <laughs> yaama bàyyil ma miinu ko ndax ci laa jëm bàyyil ma miin ko ndax ci laa jëm parce que bu sa papa faatoo tey mbaa sa yaay wax naa ko keroog ci mbokk mu ñu doon yóbbu yoof ma ni ah ku fekkoon sa papa taxaw de nga xëpp ko peelu suuf loo sedd sedd sedd sedd daa xeex ak moom waaye tey jii yaay fab peelu suuf tibb ko ba mu fees dell nga xëpp ko sa papa ah waaw sëñ Babacar Abdoul Aziz ca njàngaleem yu rëy ya bi Ousseynou Mbaye faatoo ca Tiwaawoon mu dugal ko ci biir suuf te keroog mu ngi sol neer bu weex tàll ndeysaan ñu ñëw ko ñaw bu rafet mu dugal ko ci biir suuf laa fa meg yére yépp taq suuf am benn taalibi ndeysaan bu koy fëggal suuf si mu ne ko ab jaru ko fii oseynu féete tey su ma fa féete woon fu amul suuf ci man daa fa def suuf allahu akbar keroog keroog te ñépp a daanu waaw waaw keroog la wax ni bañ sa yére tilim bañ sab xol tilima ko gën fekk def ne nañu àgg suuf toroxlu ñaanal Ousseynou ba ci man mi keroog maa ngi seet li ma sol ak suuf si ni mu ñuule waaye benn baat rek la wax mbokk yi bañ sa yére tilim bañ sab xol tilima ko gën ñu ñëpp ñu ne groupe ci suuf mu ne ko fii aussi Ousseynou féete tey bu ma fu féete woon fu amul suuf ci man daa fa def suuf xale bi ni ko papa mënumaa daw suuf ndax ci suuf ci la ma yàlla bind misaal bi soriwul galaas ci ndox la jóge boo defaatee ci ndox rek muy ndox lii matière lii matière la moo tax Cheikh Alxaaji Maalik ni ko comme yow doo nekk ruuw da ngay fënax xaaral ma miinal la ngay mus lu wex lii du dara ci suuf la jóge boo defaatee ci suuf muy suuf yàlla subhaanahu wa taala li ko intéressé ci kooru ci doomu aadama bi mooy ruux gi moo tax bi muy wax ci alquran waxul kullu kullu ruuxin kullu nafsin la wax bakkan mooy dee mais ruudu du dee wa yasalunaka ani ruux quli ruux min amri rabbi xale bi ni ko ci suuf laa jógew te ci lay dellu te ci la ma yàlla di dekkale ëllëg ngir fay ma sama jëf rek commencé jooy mu ni xale bi looy jooy mu ni ko xawfan mina naar papa ragal safara rek moo tax may jooy mu ne ko yow mësooragoo amagoo sax fukki at naa ragal safara mu ne ko papa dama gis sama yaay buy taal añ day wut matt yu ndaw matt yu ndaw walla gittax yu sew taal leen ba ñu tàkk ba noppi mu fab matt yu mag yi door a teg ci matt yu sew yi matt mu sew mi mooy jafal mu mag mi segam doomu aadama moo am xelu ndeke matt mu mag kenn mënu koo taal te boole woo ca matt mu ndaw istamaag yàlla damay ragal ëllëg yàlla subhanahu wa jël ñu ñun xale yi jafe lañu mag ñi loolu la sama xel dem sànq moo tax may jooy kon loolu nekk lu am solo yàlla subhanahu wa taala nag ci yërmandeem ju yaatu ji mu fab tuub def ko muy caabi bi ubbil doomu aadama bi njëggal ndeysaan ci bépp bàkkaar nag ak nu bàkkaar ba mage fa bi tawbati tumxa as sayiaat wa tatabaddalu ci tuub rek ci la doomu aadama di amee ñu effacer ko ay ñaawteefam yépp ba pare ñaawteef ya mu defoon ñu soppil ko ko yiw waaw waaw subhanahu wa taala moo baax waaye mënoon naa yem rek ci subhanahu mënoon naa yem ci jéggal la rek nga dem kon doomu aadama bii tabarakallahu day kontaan waaye daf lay jéggal ba pare fab tabarakallahu ñaawteef ya nga defoon soppil la ko yiw soppi la ko yiw soppi la ko yiw waaw waaw jéggal la ba pare fab say ñaawteef soppi la ko yiw wa biha yanaalu lmuslimu alfalaaxu fi dunia wal axira tuub bu yàlla nangu ba tey dafay may julit bi texe àddina ak alaaxira te texe àddina neex na lool texe àddina neex na lool mooy yàlla subhanahu wa taala defal la sutura ak sag sutura ak sag mbokk yi ñaari siin yii ku ko am wallahi wal quraan am nga texe addina ak alaaxira sag ak sutura waaw sag mooy tax sa sutura du xaweeku ndax ku la gis nga solu mu foog ni yaa ngi addina ak li ci biir kenn du dem sa kër ba yërëm la kenn du dem sa kër ba yërëm la daa am añ ca na mu gën a neexe daa am reer ca ña mu gën a neexe daa am ndëkki te na mu gën a neexe moo tax boroom kër bu nekk war ngaa xar sa tànku tubéy ba ñett yooyu nga koy matalal sa njaboot waaye Sénégal léegi kenn toggatul reer benn waaye wax na ko muy wax bu am solo nee na ci concert casserole boobu politicien boobu santaane woon nee na ci la xam ni réew mi ñu ngi ci crise ndax cin yi bu ñu occupé woon ca yooyu jamono du ñu tal tëgg mu metti moom <laughs> muy wax bu muy wax bu bu kawe boo xam ne après dama ci xalaat ma ne effectivement wax na dëgg ci concert casserole bi ci la xam ni ndeke sénégalais yi du ñu togg reer ndax ci yi bu ñu occupé woon keroog ku wéeru cin yi occupé tàng jër tabaarakallah supp bi di bax wala cere ji ah kon du ñu am boobu jot kon nag tabaarakallahu kenn ku nekk xale yu xale yu jigéen yu bari ndax nañ leen ci jëndal leen ay shawarma ay pizza yu kenn xamul kon nag tabaarakallahu reer soos mag ñi dañ daan def cere ju bari wal ko am ko ci kër gi tey ko léegi nag jigéen ñi dañoo tayeel ah, cere ju bari teg ko waaw boo xëyee rek tabaarakallaahu daal di defar sam ñeex woo sa njaboot ñu lekk ba suur waaw mag ñi nee nañu biir du fen waaw yooyu yëpp tabaarakallaahu nit ñi dañu tayeel léegi bu dëkk ci kër kële jëndi fonde kële jënd laax kële jëndi miche wi kële jëndi nàngam mais yooyu suñ ko dajale woon mën a def reer bu ñëpp xaj bu ñëpp xaj toujours ma wax ko toujours ma wax ko waaye nag xale yu jigéen yu ci baree baree bari léegi traiteur yi tax nag ñëpp tàyyeel togg te mag ñi tabarakallaahu dañuy wax ni traiteur yi tax na ñëpp tàyyeel togg te yooyu euh, day delloo kër gannaaw mag ñi dañ doon wax ni cin bu ca kër bu ca cin dul tàkk day delloo kër gannaaw mas naa dégg sama maam yaa ma wax ko ni ko bu mu amati benn jeeg bu doon sëy ca kër ga togg añ tibb ci reer mu ni ko bu mu amati gobar si baaxul day delloo kër gannaaw